sangub sang yi sayiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te xadis bi mu jëme woon ko ci luy soññ jullit ñi ñu gën a yittewoo dundug àllaaxira ci dundug tey te it di doyloo lépp lu leen yàlla jox te ñu koy delloo suñu borom tabaraka wa taala itam nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xadis bu am solo dafa wax ne ñaara ngi yoo xam ne ni doomu aadama da koo bañ lool te sib ko te ragal ko te moo day moo gën ci ab jullit de moom ñu ne ko ban ak ban mu ne doomu aadama dafa ragal dee lool te bañ ko te moo ne jullit bi nga xam ne ne tege na ci yoon dee moo gën ci moom muy wéy di dund ci dunduk fitna dunduk fitna mooy lan mooy dunduk adduna gi ndax suñu borom tabaaraka wa taala eh, seen alal yeeg seen njaboot yi yëpp kat fitna la innama amwalukum wa awlaadukum fitna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ne doomu aadama itam dafa ragal ak ñàkk maanaam alal ju néew da koo ragal lool te bañ ko te moo ne alal ju néew moo gën ci jullit bi ndax bu ëllëgee buñ koy audité buñ koy xisaab mu yomb mbokk yi naka euh, na bu ñuy xisaab koo xam ne nii ay ñaar fukk ki téeméer a ki ñaari téeméer la am nga xam ne dundam gépp mosu cee am ñaari junni wala juróomi junni yu bokk buum ah buñ koy xisaab xanaa xisaabam moo war a gën a gaaw te gën a yomb ñuy xisaab ab milliardaire koo xam ne nii ay milliards la amoon wala ay millions te it balaa kenn na jéggi siraat lépp lu mas a jaar ci sab loxo moo xam fifteen la moo xam tànk la moo xam centime danañ ko régler ci naka la duggee ci say yoxo ak num ci génnee kon kay néew alal wax dëgg yàlla booy seet ca foofa moo gën moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne isnataani yakrahuma ibnu aadam yakrahu al mawta wal mawtu xayru lil mumini min al fitna wa yakrahu qillata al wa qillatu al maali aqallu lil xisaab te it dunduk àdduna moom fitna la te alquran na min al qatl fitna moo gën a métti dee kon foofu rek mën nga déggee xadisu yonante bi sallallahu alayhi wa wa sallam moo tax nit ñu baax ñi ñu yitte woo woon ñoom mbirum ëllëg gën a yitte woo mbirum ëllëg ci mbirum tey wax nañ ne sëriñ Abdul Ahad radiyallahu anhu am na ku ñëw ci moom ne ko Mbàkke yàlla na nga fi yàgg mu ne ko ba ma ñaanal yàgg ñaanal ma àgg yàgg fi te àggoo amul benn njariñ nee nañ sëriñ Malick Baye Sy itam bu ñu masaan ñëw ne ko diw de ku baax a baax la te jub te tege ci siraatul mustaqim day wax ne yàlla na gaaw bu ne ko waaw sëriñ bi ñu wax la nit ku baax yi nii amul loo koy ñaanal lu dee mu ne waaw dama ko ñaanal mu gaaw dee balaa bon ndax àdduna dafa wóorut buñ ne ko diw de ku jubadale eh, te te te te dëng moom daal ku sikk la ku waar la danaan yàlla na gudd fan waaye ne ko waaw sëriñ bi ñu wax la ko tegewut ci yoon amul lenn loo koy ñaanal ñaanal lu dul gudd fan mu ne waaw dama ko ñaanal mu gudd fan ndax mu jub balaa dee ndax deetu juboo ko daa wóorut kon nag yooyu yëpp. lañ ci mën a déggee moom mooy àgg rek am solo euh, ñu indi benn xisa boo xam ne nii dañ koy faral di nettalil nit koo xam ne nii am xelam dafa neexut muy ñi ñi wooyee euh, boroom xel yu neexut yi ñu yor jàngoro yi xel maanaam dof ci gàttal ndax mu leer dañoo wax ne dof bi dafa dëkk ci dëkk bi waaye nag as këmb su woyof la am alalam jépp ca la ko ëmb mu ngi dëkkit ci garab gi ci digg pénc mi bu waxtu xewlu jotee mu wër ci kër yi ñu jox ko lum xewloo mu xew xewlu ba suur naan ba man di ñëwaat ngeewanoo as këmbam benn bis nag dëkk bi na jëppet di tàkk mu daal di gàddu këmb sama am rek mu woyof lool mu daal di taxaw ci buntu dëkk ba nit ñi nag di kër kër yi ñii di yanu seeni lalak ñu seeni armoire di génne ngir bañ mu lakk ñii di gàddu seeni saako ñii di gàddu seeni gaal ak seeni walis mu taxaw rek di leen ree naa leen tey ngeen xam ne bari lee bon tey rek ngeen di xam ne bari le moo kon nag loolu la nga ciy déggee moom mooy ah doomu aadama de bañ na lool dee waaye li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rek képp ku jub te baax gaaw dee dem ci yërmande yàlla de moo gën waaye nag doomu aadama ragal na it ak ñàkk lool te ragal alal ju néew waaye loolu moo gën ndax bu ëllëgee buñ koy xisaab mu yomb eh, incha allah bu ëllëgee ñu andiwaat leneen lu niroog lii bu soobee suñu borom tabaraka wa taala di sant mbokk yi nga xam ne ni ñoo ngi jàppale waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di sant itam ñi bokk ci association bi ñi am carte membre it te weer wu ne ñu joxe seen dara te lépp jëm ci liggéey bi ndax moo tax ñu samp daara daara ji itam fii mu toll moo ko fi tolloo la te ñoo ngi ñaan